billahi min alsheytaani arrajim بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل باطن الأنوار ظاهر الظلمات اللهم بأسمائك البهية والشعاعات العرشية والكلمات الربانية والطلاسيم العبرانية والأقسام الملكوتية والأسرار السريانية وتسابيح اليونانية إلهي برفيع السماء وقوة الأرض وهيبة الشمس wa bi sirri al-a'zami alladi bayna az-zulmati wan-nuur yaa man kasaa quluubul aarifiina min nuuril uluhiyya wa yaa man arsala ar-riyaaha nushran bayna yaday rahmatihi salli ala sayyidina Muhammad salaatan taftah lana biha abwaaba ar-ridaa wat-taysiir wa tughliqu anna biha abwaaba ash-sharri wat-ta'siir wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira anta waliyuna fa nicma almawla wa nicma alnasir ayuha almushahidun alkiram fi daxili senegal wa fi xaariji alwatan nuraxibukum kalaada fi kul yawmi alxamis wa nashkurukum gaayata shukri li xusni mutaaba'atikum ma'ana fi kulli yawmil xamiis wa naqulu lakum marhaban ahlan wa sahlan bikum haa nahnu alyawma fi intidaarikum bi diqqatin wa sururin wa ba'd naqulu lakum salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara ci alxames ji fooy mën a ne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 yaati naas min kulli fajjin amiq nit ñi fu nekk li ñuy joge ngir teewe bésu Cheikh Ahmad Bamba eh, ni mu ko bëggee woon ñu defale ko ko noonu ñu ñaan yàlla ñëpp teewee ko kenn bañ a manqué bi jaahi sayyidil wujudi wa alami shuhud lépp luñ fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu lépp luñ fa jëfit ci yiw yàlla ñu ko yàlla fulal mbokk yi ñu ngi dellu si ak yéen kal aadati fi kulli yawmi alxamis fi barnamijikum tafsiru al axlaam wa nahnu kal aadati fi intidaarikum bi haadayn arraqmayn xaysu ma ittasaltum bina inchaa allah sa tajidunana xaadiran kal aadati mbokk yi ñu ngi leen di xaar ci 88 628 04 05 wala ngeen ànd ñun ci 88 628 65 65 waa bitim réew mën naa ànd ñun ci 00 221 33 841 22 99 ñi ngi noonu mbokk yi numéro yaa ngoog ñu ngi leen di xaar ngeen mën a ànd ak ñun ci seen émission firi gént comme niñ leen kon daan defalee incha allah alxames bu jot ci waxtu wi euh, balaa ñu dugg ci bataaxal yi incha allah ñu bàyyi xel ñi ci ligne bi Euh, balaa ñuy ñëw ci bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fi seeni borom euh, di ko laaj bëgg ñu indi ci ay bayaanaat ala kulli xaal euh, bi ci jëkk nag mbokk mi nee dafa yónnee bataaxalam di laaj laaj bu ko yitteel lool mbokk mi dafay laaj neena na su fekkente ne danga gént di dox te solo yére ci mbedd nee na dafa gént di dox ci seen koñ koñ bu mu dëkk te sol lu yére eh, yaramu nen daal la doon doxee muy laaj afi zalika xayrun am laa nga eh, gént nag mbokk mi di dox te solo yére gënul ma fi zalika xayrun ida macha al insanu fi tariqin walam yalbas sawban fa dalika yadullu ala maradin xatirin fi jismihi day tegtale wéri di yaram baaxul kon nañ ci bàyyi xel bu baax eh, ndax du lu gën beneen bi ci tegu mbokk mi neen dafa yónnee ba xalam moom it neneen mi ngi dëkk bu sori moo tax xëj na mu yéex ñoo mën a jot ci téléphone bi moo tax mu yéene bataaxalam kii ne dafay laaj laaj bu ko jaaxal nee dafa gént fi muy liggéeye étage bi mu nekkoon ci kaw màbb ba ci suuf dara desetu ji muy laaj kër gu màbb wala etaas bu màbb ma bayaanu zalik eh, defe naa am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko te ñëw salaamaaleykum allo allo waa dégg-dégg bi neexul allo allo allo waaw su ma ne duggaat woote waat ndax euh, dégg-dégg bi dafa dafa xaw a naqari salaamaaleykum allo waaw allo bismillah allo waaw bismillah allo. waaw bisimilah allo. waaw dama bëgg a wax ak Papa waaw bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw moom laa bëgg waxal nii. waaw. mun naa wax ak moom. Mhm. allo. waaw bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw man la dama bëgg dama am gént bu may laajte après dama soxla tamit sa numéro. waaw bisimilah. waaw sama dama am gént boo xam ne sama. sama jëkkër moo ko njëkk a gént. Mhm. waaw sama jëkkër nee na dafa gént dafa am fu mu tegoon otoom. kooko nee na bi mu ñëwee delluwaatee bi jëli oto bi nee na fekk ko oto bi. nee na léegi nag mu ñëw laaj ci am fu mu ko fekk mu laaj ko mu ne ko man de sama oto fii laa ko bàyyi woon gisoo ko mu ne kooku ne ko sa oto bi mu ne la dafa dugg ci pax. mu ne ko nee na mu gestu seen oto bi dugg ci pax. nee na noonu la yeewoo man tamit affaire bi dem ba une semaine. Mm-hmm. man tamit ma gént allo. waaw. allo. waaw maa ngi dégg waa bismillah. allo yaa ngi may dégg. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. waa bismillah. waaw. Mm-hmm. nee na man tamit ma de une semaine man tamit ma gént sama oto. mi ngi réer dafa amoon fu ma ko parké woon ma ñëwaat gisatuma oto bi man sama oto. Mm-hmm. léegi nag. bi ma demee di wër oto bi di wër oto bi gisuma ko ma gis ñëpp di jël seeni oto ñun ñëpp ñu parké ñëpp ku di jël otoom man ñu ma fexe ba gis sama oto ku ma ko laaj ñu ne ma oto bi mu ngi fële mais du ma ko gis léegi nag bi ma demee ba ba benn fa am fi ma dugg fi ma fi ma dugg ma gis fa ay nit ay mbooloo ma ne leen waa yéen gisoo leen sama oto ñu ne ma déedéet ma ubbi nag ñaari buntu yi mag bi ma ubbee ñaari buntu yi ma gis lu mel na bàmmeel ak géej bàmmeel bi moo jiitu géej Mm-hmm. léegi nag ma gis bàmmeel ak ak ak euh, ak ak géej géej gu set géej gu rafet ndox mu rafet mais bàmmeel bi ngay njëkk a gis seen géej bi ci ginnaaw bàmmeel bi léegi nag après ma daal di ah waa sama oto mënul nekk si ma xool xool gisuma oto bi ma génn naa tëjaat groupe yi naa delluwaat si ma parqué woon oto bi gis ku nekk encore di jël oto mais man mënuma gis sama oto ma dajeeg benn nit nag ma yëkkati caabi oto bi mu ne ma am sa oto. sa sa caabi oto mi ngi nii man ko waa léegi ana oto bi mu ne ma oto bi mi ngi fële mais jox na ma caabi oto bi mënu ma fexe ba gis oto bi ba ma yeewu ci gént bi gisuma sama oto mm-hmm. waaw waaw mm-hmm. ba ma yeewu gisuma oto bi léegi nag beneen gént bi encore dama gént euh, fàtte sama gént la waa beneen am na beneen gént tamit bu ma bu ma bëgg ñu firil ma waaw am na beneen gént bu ma gént sama doom bu góor dafa soloon li mel ni mayo waaw dafa sol li mel ni mayo mayo bu jaune mu daje beneen nit buy def sport kooku ne ko ñëwoon ñu échanger ante man ak yow léegi nag moom sama doom mu jël mayo bu jaune mu jox ko kooku kooku jël benn chemise bu mel ni chemise bu bleu jox ko ko moom léegi nag kooku sol mayo bu jaune bi di def sport moom mu sol chemise bu bu bleu bi dem ma gis ko ma ne ko waaye yow ana sa mayo bu jaune bi mu ne ma kële laa ko jox ma seen kooku sol ko mu ngi mu ngi mu sol kilot bu jaune ba pare nga koy jox sa maillot bu jaune mu ne ma waa dañoo échangeante léegi nag noonu laa yeewee waaw léegi dama bëggoon papa sa numéro. waaw teel bi ko jox léegi teel ligne bi waa Régis dinañ la jox numéro bi léegi incha allah allo. Ah, mi ngi noonu yumkinukum an tattasiluna xaalan bi hadayn arraqmayn 88 628 Euh, wala 88 628 65 65 ngeen mën a ak ñun ci ñaari numéro yooyu léegi di ngeen jot incha allah euh, ñu ngi leen di bàyyi xel ci ñaari numéro yooyu euh, ñu fàttali ko mbokk yi 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 yi ñëw ci ki nga xam ne ki dafa woote woon yónnee bataaxalam ne dafay laaj kii dox te solul yére doxte selo yére maradun xatirun fi jismil insan in lam talbas sawban wa anta tamshi fi shawari aw tatajawal fi shawari ma fi dalika xayrun eh, ñàkk sol yére di dox ci mbedd yi eh, wére di yaram la nañ ci bàyyi xel baaxul eh, beneen bi ci tegu kii nee na dafa gént moom it di so sol benn daala te sol amul benn maanaa benn daalam dafa réer mu sol benn bi di dox ak moom te gisul beneen bi sol benn dàll yadullu ala xaajatayni xaajatayni fi xayaatil insaan ñaari yitte la bii dana faju bii yéex faju mooy nga sol benn dàll manqué la benn mbokk yi ñi leen di bàyyiloo xel wa li kulli xolmin bayaanuhul xaas lahu gént gu ngeen gént rek bu leen ko xeeb noté leen ko ngeen laaj ko ndax kenn du kenn du tëdd ne lii laa bëgg gént kenn du it defar géntu boppam kenn gént nu mu la dikkale rek jàppal ne mbiru yàlla la amrun min allahi nañ ko bàyyi xel bu la dikkalee nag fas alil al ahla zikri laajal borom xam-xam yi ñu gindi la teg la ci yoon wax la lu muy tekki wa li kulli xulmin bayaanuhu lqaas la gént koo gis rek am na lu muy tegti am na lu muy tegtale am na lu muy wundu waaye soo ko laajee rek incha allah di nga ci am euh, xabarat bu leer incha allah beneen bi ci tegu ñi di leen bàyyiloo xel gént dafay ñëw toujours ci commencement ak ak jeexukaay wa li kulli xulmin mabdaun wa intihaa gént dafa am ku fu muy commencé ak fu mu jeexee ci loolu moo lay dimbali nag nga xam euh, bayaanu xol mi euh, ak lu ci nekk la muy tegtal ak la mu lay indil ëllëg euh, nañ ci bàyyi xel kon ñi ñëw ci mbokk mi nga xam ne bi moom it dafa yónnee bataaxalam ñu xaarale mbokk yi ci ligne bi kii neen dafay laaj gént gu ko jaaxal kii neen dafa gént xuloo ak soxnaam nee na xuloo bi tar lool ci seen diggante nee na mujj gi ñoom ñaar ñépp ñu ànd di jooy eh, ndax daal dafa mel ni ci gént gi tàmmuñu woon di xuloo ay xuloo bi daal tar na seen diggante ba kenn ku nekk ci ñoom di jooy nee na bi mu yeewoo it dafa mel ni sax xaw na si yëg ni Euh, jeexiti lu jooy yi des na ci moom ba léegi muy laaj ma bayaanu zalik gis nga mbokk mi suu tafaahum fi lxulmi aw taqaasum fi ma bayna zawj wa zawja xuloo ak ñakk déggoo ci diggante ñaari way dencante yu addi ila tafaahumin azim fi ma baynahuma day euh, day indi déggoo bu mag seen diggante day indi juboo dinañ yàgg ci sëy bi yàlla dinañ leen ci defalit lu kawe seen jort rawaat lene nag bi ci jooy duggee ndax albukaa u faraxun wa sururun fi xayaati al insaan jooy guddi mbégte la xéwal la ci ñaari way dencante kon nañ ci bàyyi xel ñoom ñaar ñëpp ñu xam ne jooy baax na ci ku jigéen ki waaye baax na ci ku góor ki ala kulli xaal albukaau faraxun wa sururun fi xayaati l insan ñu ñëw ci beneen bataaxal bi mbokk mi di ko laaj kii ne dafa gént euh, teen nee teen bi nag teen bi nag li ko jaaxal mooy dafa ñëw di root ci teen bi root li mu doon mu muy paan ba dugg ci biir teen bi nee na mu yoor buum ci biir teen bi pour génnee paan bi buum bi dagg des ci biir teen bi muy ñaar nee na borom këram ñëw di ko dimbali pour baag bi génn buum bi génn paan bi génn neena na borom këram mbaxanaam rot ci biir teen bi mu nekk mbir mu yéeme muy laaj ma bayaanu haada alxolmi alajibi mbokk mi qul na dalika miraaran wa takraaran wa sanukarriruhu inchaa allah ñu jël ci ligne bi salaamaaleykum allo allo waaw xam naa dinañu ànd ak ñun ñu ngi leen di bàyyi xel ci ligne bi ci 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 mbokk mi al albiru qulna dalika miraran albiru makrun wa qadiatun wa diqun shadid ñu jël ko ci ligne bi salaamaaleykum allo allo waaw allo aywa bismillah allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ñuy ziar. yàlla yàlla nangu ziar alhamdulilah. ñu ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. allo. waaw bisimilah. allo. allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw man de daa am gént gu mu doon mm-hmm. ay jur. ay jur. waaw yu mel ni ay xarak ay nag affaire yooyu. Mm-hmm. waaw dafa bëri lu ma koy gént trop. waaw. des fois des fois damay damay gént yu mel ni nekk ci ay tool di bay. Mm-hmm. waaw yooyu tamit bëri lu ma koy gént trop. Mm-hmm. bi ma mujj gént nag moom dama gént moom bay ba pare. ñëw am na un ma ñëw fekk ay jur ci biir di ko di ko yàq. Mm-hmm. waaw léegi nag ma di leen dàq affaire yi ci la ci la ci la um mm-hmm. waaw loolu daal laa doon leer. dinañ ci ñëw léegi incha allah. waaw ah, am na beneen gént tamit boo xam ne dama dama ndox damay gént moom ndox moom damay gént lu bari moom ndox nekk ci ndox. gént ndox. waa ndox mel ni ay géej wala ndox façon ndox bu ne dama ki génn des fois tamit dafay génn te nekk si ay salt sax mm-hmm. waaw mais bi bi mu mujj géntu ndox bi ma mujj géntu moom damaa géntu nekk ci géej gi feeñ mais ba may mm-hmm. feeñ ci géej gi daa am gaal bu topp sama gannaaw te mm-hmm. léegi nag ba ma fee ci kanam nag mu mel ni dama mu mel ni damaa def ay gannaaw kër ci ci ci ci ndox mi noonu waaw loolu daal laa doon leer na. waaye baax na jërëjëf. dinañ ci ñëw jërëjëf incha allah. شكرا نشكركم غاية الشكر لحسن متابعتكم معنا في كل يوم الخميس في برنامجكم تفسير الأحلام ونحن في انتظاركم كالعادة بقي نجلك تلين السلام عليكم ألو salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah bisimilah. maa woote depuis Lomé. ah. waa dama amoon ay gént yu ma bëggoon nga firil ma ko. waa nga woote. maa woote depuis Lomé Lomé. ah Lomé. Lomé Togo. waaw Lomé Togo waaw bismillah. waaw dama amoon ay gént yu ma géntoon. Mhm. dama géntoon ne dama demoon marché. Mhm. léegi nag ma demoon marché ma gis ñaari yu pentaat yu weex taal ma waxale ko ñu ja ñu jaay ma ko. ñaari jën allo. waaw. waaw dama demoon marché ma ma bi dama demoon marché ma gis ñaari yu pentaat lu jaay moom ñaari neuf mille. jën malo xale tamit ñaari ñaari ganaar ganaar. ah ganaar lu jaay ma ko cinq mille. Hmm. léegi nag ma ne borom ku ma yi ma ko xanaa doo ma wisal dara mu wisal ma ko mu wisal ma fruit. ñaata lañ la ko jaayee quinze ma ko jaayee. Hmm. waaw léegi nag ma dem ci keneen nag mu jaay ma benn melon. benn pastèque la ma jaay. Mhm. jaay ma tamit papaya. Mhm. Mhm. léegi nag ma ne ko xanaa doo ma mu ne ma ne ko doo ma wisal avocat ne ma avocat bi dafa cher mënu ma wisal avocat. ma ne ko su ma ma ne nag ci gént bi ma ne ah su ma ñëwee kër ga ma yaay dina kontaan parce dina kontaan trop parce que jëndal na ko ñaari pentaat ak ñaari ganaar. ci gént bi boobu benn la mm-hmm. allo allo waaw waaw ginaar yaa ngi ko jëndee quinze mille xaal bi ak papaaya bi loo ko jëndee waaw pasek ak papaaya mm-hmm. waaw xaal bi ak papaya bi dama dama ko jigéen bi wax dama jënd papaya bi ak xaal bi wante yëg bi xaw ma jënd bi ci bi dama ko wax ne xanaa dama wisal avocat jigéen bi di déedéet lu mu ne yëg bi dafa cher mënu ma wis avocat. Mm-hmm. d'accord. waaw. waaw léegi boobu benn léegi beneen bi nag ko ba moom dégg naa ko ñetti bu ma la bëgg wax léegi nii damaa ci gént bi damaa seyoon am ci kër léegi ñu nekk ci kër bu mag léegi ma am ñaari doom ci gént bi kër bu mag am am ay arbre yu bari. Mm-hmm. léegi nag. am benn wër boo xamante ni. corbeau bu ñuul yi dañuy ñëw wër kër bi wër kër bi bu bari dañuy wër wër. ba bëgg ñu bëgg sàcc samay doom léegi suñu bëgg sàcc samay doom dama jël xale di leen làkkatu boobu moom gét naa ko ñetti yoon mm-hmm. waaw waaw loolu mooy ñaari gént yi jërëjëf ñi ñii ñii bëgg a sàcc damaa bëggoon tamit am sa numéro ñi bëgg a ci sa doom ñaan la xamoo leen allo. allo waaw. waaw ñi bëgg a sàcc sa doom xamoo leen. waa waa ñu bëggoon sàcc sama sama doom nag ci gént bi léegi suñu bëgg a sama doom korgo yi dana jël xale bi ko làkkatu gént boobu gént naa ko ñetti yow. d'accord d'accord léegi téye ligne bi dinañ la jox numéro bi léegi incha allah. léegi damaa bëgg am sa numéro tonton. waaw té té ligne bi dinañ la jox numéro bi léegi incha allah. bul coupé dinañ la jox numéro bi léegi. incha oh, euh, mi ngi noonu nañ ci bàyyi xel yi jël keneen ki ci ligne bi allo salaamaaleykum allo. jël keneen allo waaw allo bismillah allo waaw allo da ngay bu ngeen ne woot da ngay wàññi télé bi ndax ñi déggante bu baax allo waaw ñu ngi koy bàyyi xel ci ligne bi xam naa dina an hmm? allo waaw waaw bismillah ah, allo waaw bismillah allo waaw ñu ngi lay dégg bismillah allo allo ñu ngi lay dégg de yow yaa ñu déggul allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah salaamaaleykum salaam waaw soxna kii yaa moom ngay waxal kay yow kay yaa ñu déggul rek bi ah? ma ne moom ngay waxal de mu ngi lay déglu de. waa moom ngay waxal. damay xaar yaa ngi wax ak de ñoo lay déglu. allo. allo. allo. salaamaaleykum ça euh, ñu ngi lay déglu. waaw. allo waaw xam naa kon dina àndaat ak ñun ci kanam tuuti xëj na fa muy woote moo sori wala liñ bi bari ay jafe-jafe incha allah mën na àndaat ak ñun ci kanam tuuti mu woote waat ñàkkul ne dinañu déggoo bu baax du tee ñi leen di xaar ci 88 628 04 05 wala 88 628 65 mbokk yi numéro yaa ngi noonu ah. su ngeen ñu wooyee léegi da ngeen jot waaleykum salaam. waaw na ngeen def. sant sant sant yàlla bu baax alhamdulilah. waaw man de dama amoon ñett gént yu ma géntoon ah, ci ci ñeenti at paase. waaw. ma bëggoon ku ma ci jàppale quoi. Mm-hmm. allo. waaw bisimilah ñu ngi déglu. allo. ma ne waa bisimilah ñu ngi lay déglu. allo. waaw ñu ngi lay déglu bu baax bismillah waaw dama ne. Hmm. Ah, dama tëddoon benn guddi ñeent at yi passé quoi dama gént maa ngi maa ngi nekkoon dina dama gént. waaw dama gént man ak sama yaay ak sama benn rakk bu jigéen. léegi. dafa mel ni daal sama yaay dafa jox ah, sama rakk bu jigéen di yàpp bu ñu togg quoi pour na ko yóbbu. sama rakk bu jigéen bi dem ba ba ci dëgg yoon bi mu tiit mu dellu si waaye bu mu dellu see man ci laa ko ne comme dafa tiit na ma jox yàpp bi man ma dem yóbbu waaye bu ma jëlee bool bool bu ndaw la quoi waaye bu ma ko jëlee damaa dox daal ba ci digg yoon bi dafa mel ni damaa gis euh, segg bu góor ak segg bu jigéen euh, ñuy ñuy sëy quoi ci digg yoon bi ma taxaw nag di leen xool après ci laa yeewoo mm-hmm. alo waaw waaw après nag ci laa yow ma taxaw nag di leen xool dafa mel ni daal dañoo nekk di sëy daal segg bu jigéen ak segg bu góor waaye maa ngi yor bool bu ndaw bi taxaw di leen xool ñuy mel ni dafa dafay xaw a mel ni dañ may mbaw daal waaye taxumaa tiit noonu nag maa ngi taxaw rek di xool ko may naan ah xëy na yàpp bi kon moo leen xetu yàpp bi kon xëy na moo leen dérangé daal mhm. ci laa yeewoo mhm. waaw beneen bi nag maa ngi gént nekk ci benn nekk ci benn train train bi di daw waaye dafa ñëw ba ci garage rek après ci laa wàcc bu ma wàccee damaa dox tuut rek ma gis benn euh, maire bu buy buy togg ceeb bu ceeb ceeb bu xonk daal bu weex daal ceeb bu weex. Mm-hmm. waaw ma taxaw nag di seetaan maire bi xam na xaw nañu am distance nag waaye ma taxaw di taxaw ma taxaw di xool maire bi après ci laa yeewoo tamit. Mm-hmm. train nga dugg. waaw ñetteel bi nag moom ah? train nga dugg train. ah. nga ne da dugg train. waaw train bi damaa wàcc damaa ñëw ba garage wàcc train bi. waaw maa waaye bu wàccee train bi ci garage bi damaa dox tuuti rek. ma mm-hmm. gis ay eh, nit quoi waaye damaa gis benn maire daal laa gën a kii benn maire boo xamante dafa doon togg ceeb bu dafa mel ni bana la doon togg quoi ceeb bu weex. waaye dafa mel ni nag ku pare quoi. waaw mu ngi yëngal noonu waaye dafa pare maa ngi taxaw di xool ceeb bi rafet ci man daal man na ceeb bi dafa maa rafet daal ma taxaw di seetaan ceeb bi mm-hmm. waaw après bu ma jegee ci loolu troisième gént gi euh, damaa ne damaa géntoon étage bu ma dëkk bi maa ngi nekk ci kaw xëy naay ñëw ma daw wàcc man bu ma dawee damaa wàcc jënd cigarette pour jënd cigarette pour balaa taw bi di commencé quoi mais balaa may pare jënd cigarette ci la taw bi commencé parce que borom bitig bi moo ne ma xaar xoolal ma fii tuuti ma ñëw ma mer nag waaye bu ma meree après mu dem tuuri ndox ñëwaat mu ne ma jërëjëf après ci laa yëgaat étage bi daw ba ma àgg fu ma jëm ma ma mel ni ku fatt quoi bu ma melee ni ku fatt ci laa yeew mm-hmm. waaw ñetti gént yooyu bu ma ko léegi nag am na lu tollook euh, ñeenti at ah. mm-hmm. waaw jërëjëf baax na incha allah ok pour euh, nga jàppale ma si su fekkee mën naa sarax daal. d'accord incha allah. shukran nashkurukum gaayata shukri li xusni mutaaba'atikum maana fi barnaamijikum tafsirul axlaam 88 628 04 05 wala 88 628 65 65. mbokk yi mi ngi noonu ngeen mën a ànd ñun ci numéro yooyu ñu tudd léegi xaalan. incha allah su ngeen wootee rek di ngeen ñu jot léegi ci 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 su ko defee ñi ñëw ci fi ñu toll woon sànq ci bataaxal yi euh, xaarandi mbokk yi ci ligne bi incha allahu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum euh, allo euh, xaarandi mbokk yi ci ligne bi allo allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam bisimilah. allo waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. jàmm rek. alhamdulilah bisimilah. waaw dama bëggoon nga. dama ah, dama doon laaj dama géntoon ay gént ma koy laaj. waaw bisimilah. Mm-hmm. ma bëgg nga firil ma ko. jaam na rek dama géntoon dama gént ma yoroon ñetti téeméer. ngay. waaw léegi ma yor ñetti téeméer mille franc yi réer ma. waaw mille franc bi réer ma waa. mille franc bi réer la. waaw léegi démb nag démb tamit ma gént ma ànd suñu benn dëkkandoo. léegi nag maa ma ànd ak benn dëkk mais ñu jënd ji ay bool ma gum ko fi ñu jaayee ay bool ñu yéeg ba ci kaw waaw ci kaw di jënd ay bool bu jënd ay bool yi rafet naan ko boole de mu amee xaalis dinaa ci jënd waaw kay loolu laa bëgg a laaj jërëjëf waay jërëjëf na yàlla gëddal sa euh, ñu xaarandi ki ci topp ci ligne bi ci 88 628. 0405 salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Oustaz. waaw. bisimilah allo waaw bisimilah ñu ngi lay déglu. allo. allo waaw bisimilah ñu ngi dégg. allo. allo ñu ngi lay dégg bu baax. allo. Oustaz man de waaw dégguma la bu baax ma ne. waaw ñu ngi dégg waaw. dama géntoon benn gént sama papa nag dafa génne àdduna. Mm-hmm. léegi nag bu ñu génne àdduna mooy tëdd gént mu ngi ñëwaat ci kër gi. Mm-hmm. Euh, kër gi nag am ndox bu bari mm-hmm. mu indi benn garab bu mel ni garabu tàndarma yooyu. mu jiw ko ci ci ci kër gi mm-hmm. léegi mu jël mu ne ma kër kër gi yëpp ma def ko ay pax mooy comme booy def collecteur miir mm-hmm. ma def ko mu wóor waaw mm-hmm. ci gent gi nag gis naa ko mu sol ki yére yu weex laal yére yu weex beneen gént bi dama gént ci buntu kër gi mu am ndox bu bari mm-hmm. ma gént mu am benn mbaar bu kawe mel ni euh, ñaareel étage comme daal mbaar bi dafa gudd rek ci biir kër gi ci wetu buntu kër gi mm-hmm. kër gi yëpp nag am ndox mm-hmm. waaw. waaw ah, ñetti gént la nag beneen gént bi. Mm-hmm. yépp ci ndox la tamit. waaw beneen gént bi benn fas la ñetti lañ ci fas bi fas baa ngi daw ci ndox bi. fas baa ngi daw ci ndox mi. maa maa ngi. léegi nag ñoom ñoom ñaar ñëpp dañoo mag. man rek maa ci nekk xale fas bi di daw fas bi di daw ku nekk wàcc pour taxawal fas bi fas bi bañ taxaw keneen ki itam dem fañ bi fas bi bañ taxaw léegi nag man bi ma wàccee ma taxaw kanam fas bi rek fas bi taxaw ci biir ndox bi. Mm-hmm. ci sareet lañ nekkoon nag léegi ma taxaw ci kaw ci kanam fas bi fas bi taxaw. Mm-hmm. loolu laa bëggoon laaj loolu laa bëggoon leen am na benn nag mooy gént boobu benn sëriñ la. sëriñ bi daal wali la mu nekk Medina Gunaas su am Dakar gis naa ko ñetti yoon ci gént benn bi ci wetu gonki jumaa yeneen ne fàtt naa fan la waaye gis naa ko ñetti mhm. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah waaw loolu laa bëggoon leen jërëjëf shukran sanaati bi zalika incha allah allo incha allah. jërëjëf. allo. allo waaw bisimilah soxna si. allo. allo. allo waaw bisimilah. allo. allo ñu ngi lay dégg bu baax. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi lay dégg. waaw bisimilah asalaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi lay dégg bu baax soxna si gént yu ma doon laajte papa waaw bisimilah dama amoon gént yu ma doon laajte waaw bisimilah ñu ngi dégg waaw mun naa wax waaw allo waaw xam naa dina ñëwaat ci ci kanam tuuti incha allah. allo waaw ñu ngi lay déglu. papa Abdou Karim. bisimilah ñu ngi lay déglu. allo waaw. waaw. soxna si ñu ngi lay déglu bisimilah. waaw xam naa ligne bi bari xat rek waaye ñu ngi koy dégg bu baax moom moo ñu déggul waaye ñu ngi koy dégg bu baax incha allah mën na ànd ak ñun ci 88 628. zero quatre eh, zero wala yu mel noonu incha allah ci wala quatre vingt huit six cent vingt huit soixante cinq soixante cinq eh, xëy na liñ bay xat rek waaye ñu ngi koy dégg bu baax di ko déglu bu baax eh, mbokk yi ñëw ci bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fii seeni borom di ko laaj bëgg ñu indi ci ay bayaanaat ala kulli xaal ki ne dafay laaj mbokk mi dafay laaj lu ko jaaxal lool mu bëgg ñu indil ko ci ay leeral ala kulli xaal kii neen dafa gént euh, borom këram moo gis moo jël koko bàyyi ko ci biir otoom nee mu ñëw dellu si fekkaatu fa koko ba muy laaj ma bayaanu zalik boobu mooy bu jëkk bi al aljawzu fi sayaarati kooku ci biir oto baax na bi chartin nga ñëw fekkaat ko fa boo fa fekkaatul du lu gën muy bu jëkk bi baaxul euh, beneen bi nee dafa gént otoom dugg ci pax loolu ay nit yoo xam na ñi seeni wax ak seeni jëf day woroo alsayaara allati daxalat fi lxufri alxufru kal biiri alxufru kal biiri kilahuma ala xaddi sawaayi yadullu ala makrin wa qadiatin fi xayaati linsan teen ak pax ñoo yem bayaan baaxul ay war lay indi ay ñàkk déggoo ak nit ñoo xam ne ñi lañ lay wax ak li ñuy defi am rey ne muxtalifay ne Eh, beneen bi ci tegu ñu ñëw ci kii ne dafa gént otom réer mu di ko wër gisu ko fu nekk dugg na fa daal gisu ko nee na mu dugg ci benn kër fekk fa benn bàmmeel neena ci ginnaaw bàmmeel bi gis na fa géej nee na loolu bokk na ci li ko gën a jaaxal kër boo ci duggee fekk ci bàmmeel ci ginnaaw bàmmeel bi nga fekk fa géej kër gu bari wërsëg la kër go nga dugg sawa an xam nga ko wala xamoo ko kilaaxuma ala xaddi sawa yi kër gi nga dugg daal kër gu bari wërsëg la waaye am na jafe-jafe jafe bi mooy la fa wërsëg di bari ci kër gi yëpp du ñu déggoo du ñu ànd nekk benn te seeni alal duñ ko bokk mooy bàmmeel bi nekk ci biir kër gi ndox mi nekk ci ginnaaw bàmmeel bi ndox mi alal la bàmmeel bi mooy ñàkk déggoo bi am seen biir ak fitna bi dox ci biir kër gi nañ ci bàyyi xel waaye nee na wër na oto bi ba son daal gisu ko nee na mu taseeg benn waaye mu jox ko caabi oto bi waaye gisul oto bi assayaaratu inda al mar'ati tadullu ala imra'atin assayaaratu imra'atun oto ci gént jigéen la su réeree jàppal ne dinga nga ak jigéen xuloo boo xam ne boo moytuwul mën naa indi tàggalikoo seen diggante wala ngeen dogoo ku nekk dem yoonam mooy oto bu réer te feeñul xuloo bu tar la ñàkk déggu bu tar bu mën a indi ñaar ñu ko seq dogoo ku nekk bàyyi moroomam beneen bi ci tegu mbokk yi kii nee na doomam la gént mu sol mayo mu jóge mu dem ci benn xaritam ñoom ñaar ñu wecce ay mayo mu jël bosam jox ko kooku jël bosam jox ko loolu li muy tegtale mooy tekkiwul ne mayo la du mayo dañ koy wan ne bu màggee ba toll fi mu war a toll bu defee commerce dina baax ci moom lool attabaadul ala amrin aw cheyin tadulla ala tijaratin euh, fiha xayrun weccee bi ñuy weccee ay yére wala tubéy ak lu mu ci manti doon day tegtale ne bés bu defoon loolu du ko rëccu ala kulli xaal euh, dina ci am lu kawe njortam li koy gën a firndeel nag mooy mettitlu bi ci waay juróom wu jigéen li mu def ndax alxadabu fi lxulmi qul na dalika miraran alxadabu yataxayaru faraxan wa surur fi xayaati l insan meru guddi day soppaliku nekk yiw bu bari ci dundug doomu aadama ñu bàyyi ci xel ki ne dafa bari di gént ay jur ay béy ak yu mel noonu neen it bari na lu muy gént di béy tool ay béy ñëw di ko yàq ci biir tool bi béy wa fil axnaam bayaanaat jur dafa bari te bokkul gileem ci gént baax na xar baax na waaye béy ak ginaar coow yu bari la ñàkk déggoo yu tar loo sumb mu jafe looy séentu mu yéex a ñëw loo bëgg a taxawul taxawal balaa taxaw dina metti amma alxiraasa muy bay bayit dafa bëri façon hunaak alxiraasa min alqamxi wa durrati walfustuq wa ma ila zalik xeetu mbay yi dafa bëri mboq am na dugub gerte bi ci gën daal mooy mboq ak dugub an taxrus alqamx wa durra afdal min xiraasati alfustuq maa fi lfustuqi xayrun gerte daal moom baaxul Eh, beneen bi ci tegu mbokk yi neen dafa mbokk mi neen dafa gént eh, day gént lu bari gis ndox almaa u xayrun almaa u fatxun ndox alal la wërsëg la ubbeeku la gént di fay ci géej baax na gént nekk ci biir géej dem àll ba ci biir géej ci biir ndox baax na yëpp lu baax la ci moom eh, xeewal la ko jural ala kulli xaal beneen bi ciy tegu kii ne dafa gént Euh, mi ngi Lomé nee na dafa gént dugg ci marché jënd ay ginaar nee ginaar yi mu ko jëndee quinze mille euh, ñaari ginaar euh, jënd ne ba tey xaal ak papaaya ak pastèque nee na pour yóbbul ko gorom nee na goro bi dina ci kontaan xaal ak yeneen fruits yooyu boo ko jëndee su ñoree baax na su ñorul nag baaxul su dee xaal bu ñore baax na su dee papaayo ak lu mu ci manti doon su ñoree rek fiihi xayrun amma addajajaat ginaar yi baaxul ginaar ay coow yi sew la ci diggante ay nit du lu gën nañ ci bàyyi xel waaye liñ koy digal daal mooy quinze mille yi ma ko jënde chiffre bi lay jël na jël quinze mille waaye du doon xaalis na dindi zéro yi mu des quinze mu jël quinze personnes fukki nit ak juróom kenn ku nekk mu jox la benn paquet suukar mu nekk sarax bu baax ci moom moom mi nekk lomeen te dañuy déglu na ci bàyyi xel na dindi zéro yi jël quinze bi rek jël fukki nit ak juróom quinze personnes kenn ku ci nekk nga jox ko benn paquet de sucre baax na am na solo Euh, beneen bi ci tegu kii nee na dafa gént euh, moom it nee dafa gént ñi marié ko ci benn kër bu rëy nee na kër gi nag bu mu fi duggee dafa mel ni toujours day am ñu ñëw pour sàcc ay doomam yóbbu ko nit soo géntee kër gu rëy ay nit di ñëw di sàcc say doom pour yóbbu ko du ay sàcc ñooy ñëw du ay nit ñoo ñëw kër gi nga nekk kër gu rëy googu dafa am boroom boroom ña dëkk ak seeni njaboot am na ko fa nekk ak njabootam mooy mel ni kuy këf say doom di ko bëgg a yóbbu ndax fiiraange ga muy am ndax béréb ba bër moo ko moom moo ko sanc ñun nag dañuy ñëw rek gis kër mu taxaw terrain bu taxaw rek ñu sanc daal di dëkk fekk ne bi nga koy sanc am na boroom kon dafay laaj ñu bàyyi ci xel ñoo ñu dëkk ci kër gi nag ñooy def yenn xarakaat yooyu ci biir kër gi ba mu yaakaar ne ay doomam la ñuy sàcc waaye tëddeewul noonu na ci bàyyi xel beneen bi ci tegu kii neen dafa gént moom it euh, rakkam bu jigéen yaayam jox ko yàpp nekk pour mu yóbbu ko nee na moom moo mujj jël yàpp wi ci bool di ko yóbbu nee na bi mu dem ba ci yoon mu gis ñaari segg yuy sëy nee mu taxaw di leen seetaan muy laaj ma bayaanu zalik ñaari segg yuy sëy noonu mu taxawee di leen seetaan noonu lay gisee fitna bu rëy bu metti ci diggante ñaari nit fitna bi la muy la mooy xuloo bu metti wala jokkalante ay wax yu naqari ci diggante ñaari nit yoo xam ne dana ko fekkee allahu alam ci biir këram wala dëkkandom ak fu mu mën a génne nañ ci bàyyi xel muy ñaari segg yuy sëy dina fekkee xuloo bu tar wala ñàkk déggoo bu tar ci diggante ay nit wala xëccoo ay wax ci diggante ay nit ba mu toog di ko seetaan noonu mu taxawee noonu amma allaxmu qul na dalika miraaran fil xulmi maradun xatirun fi jismil insan euh, yàpp guddi nag moom waxoon nañ leen ko wéradi la baaxul bu ñor bi baaxul bu ñu lakk bi baaxul bu ñu togg bi baaxul waaye mbokk yi dañ leen di digalaat sarax biñ leen waxoon ngeen di ko bàyyi xel fi ma bayna al qamxi wa durrati diggante mbok ak dugub mbok ñaari kilo dugub ñaari kilo am na solo benn bu ci nekk ngeen jàng ci fatiha bu sell iza jaa nasrullahi juróom-ñaari yoon fil qamhi wa durrati ci diggante mboq ak dugub mboq bi nga jox ko góor dugub bi nga jox ko jigéen wa fi haatayni sadaqatayn xayrun wa barakatun wa yusrun allo allo allo allo allo waa xam naa dina ñëwaat tuuti ñu ngi koy bàyyi xel di ko teewlu. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. allo waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk mi. waaw. waaw bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. waaw ñu ngi lay dégg. allo. waa xam naa ligne bee naqari rek incha allah ñu ngi koy bàyyi di di ko xaarandi. Euh, jàpp ñu jox ma benn muus muus. allo. jox ma benn paaka ñu ne naa ko rendi. après mu caa jël paaka bi rendi ko mu génnee deret bu bëri. loo rendi lu daan daal lu daan lan la. muus. fekk dafa laaj sarax wala yooyu. ah nga rendi ko. dégg dinañ ci ñëw léegi incha allah euh, ñu ñëw fi ñu toll woon léegi ci mbokk mi euh, na ci bàyyi xel incha allah muy yàpp daal baaxul ala kulli xaal ki nee na ba tey dafay dox dugg train wàcc ci train bi romb kuy togg ceeb nee na mu di ko taxaw di ko xool togg ceeb moom euh, bu dee togg bi daal yow yow mi ko gis wàññiwul dara ci yow xanaa ci ki koy togg bu fekkente nag lekk nga ci lekk ceeb moom am am bu yéex la sawa an bu ñor bu ñorul ba kilahuma ala xaddi sawaa'i maa fil urzi xayrun ceeb daal baaxul day indi ay yéexi-yéexi am am ci din dundug doomu aadama nañ ci bay xel euh, beneen bi ci tegu kii neen dafa gént waaw ñu jël ki ci ligne bi allo salaamaaleykum allo allo waaw xam naa dina àndaat ak ñun ñu ngi koy teewlu ci kanam tuuti kii neen dafa gént yëg fu kawe wàcc euh, fekk muy waaj a taw mu dugg ci biti gi jënd cigarette génnaat di yéeg taw bi door a sotti euh, diggante yéeg ak wàcc daal yéeg moo gën wàcc moom baaxul nuzulul matari nag moom xayrun wa rahmatun wa yusrun taw buy wàcc xéewal la wërsëg la bu ñëwam am na solo kii neen dafa gént moom it euh, mille cinq cent ci loxoom ñi sàcc wala boog mille francs yi réer mu desu ko téeméer mooy bu jëkk bi soo boo gisee xaalis réer daal ci sa loxo jàppal ne wërsëg a ngi ñëw xaalis bu réer bu réer buy ñëw la bi baaxul daal mooy pièce waaye bu dee këyit la baax na mu ngi ñëw nee na génte na it dugg ci béréb di jënd fu ñuy jaaye ay bool loolu it baax na am na solo nee gis na ci biir këram mbaar mu kawe mbaar bu kawe baax na gis na it maa an kasiran fi daari ndox mu bari baax na ci biir kër wërsëg la kii nag ne dafa gis fas yoo xam ne ñaari fas kenn mun leen téye moom mu ñëw téye leen ñu taxaw loolu nag lu am solo la boo moytuwul di nga gis ñi nit ñoo xam ne ñii euh, seeni soxna day seeni diggante day naqari lool waaye yow daal dafa mel ni sa sa diggante ak sa soxna mooy gën a yàgg ni seen diggante ak seeni soxna nañ ci bàyyi xel muy lu jar a bàyyi xel lu am solo mbokk yi xanaa kay euh, xat-xataay waxtu wi lañuy ñuy rek ndax bu ñu sañoon mën a ànd ak yéen ba ci kanam waaye waxtu wee ñi def incha allah ñu koy jégalu lool ñi nga xam ne bëggoon nañu dugg dugg ñu it ñu ngi leen ci bàyyi xel euh, bataaxal yi ñu fi fekk it incha allah euh, alxames bii di ñëw dinañ ko mottali ñëpp jot ci incha allah. Euh, ñu di ci bàyyi xel bu baax di leen ci jéggalu te nag ñu ngi ziar mbokk yi nga xam ne dañuy bàyyi xel saa su ne ci waxtu wi ñoom it di ànd ak ñun sopp ñu lool di ñu topp saa ne ñu ngi ziar ba Alaaji Badara Sarr ñu ngi koy ziara bu baax Badara Sarr ñu ngi koy ziara di ziara Omar Sidibé di ziara Assane Ndiaye di ziara Serigne Salihu saar ñu ngi koy ziara ñoom it ñu bëgg émission bi di ko déglu la di ziara Isxaaqa sar Isxaaqa ñu ngi koy ziara bu baax di ziara Basiru Ñang ñu ngi koy ziara Papa Samb ñu ngi koy ziara bu baax di ziara Cheikh Tidiane Ba moom it ñu ngi koy ziara di ziara Mangone Thiam ah, di ko ziara bu baax ak waa Gàmbi ga mu nekk ñoom it ñu ngi leen di ziara ñoom ñëpp di ziara Adja Jëliya Sall Adja Soxna Ba Alaaji Malik Ba Souleymane Ba Adama Ndiaye Ndiku Fall Mansour Sarr Mam Lisoun Mouhamadou Mbay Mirina Mbay Mujibu Lay moo Ndiaye docteur Pouy Aminata Touré Bintu Ñang Bachir Ba ci Mauritanie ak soxnaam Thiané Thiané Diagne ñu ngi koy ziara Abdourahmane Mbacké Massamba Rose ci France Elisabeth Sagna ak borom këram monsieur Sagna mustafa Mouhamadou Moustapha Yaali ñu ngi koy ziara Adja Khadisi ci Jaksaaw al imam Malick Fall nekk Nouakchott ñu ngi koy ziara bu baax imam Malick Fall ak soxnaam Khadija di ziara Roxeeti Diop soxna Mati Diaw cité des magistrats alaaji ma jaañ gay ca Italie ñu ngi koy ziara di ziara Adja Salima Sem Salimata Sem ca Nouakchott cinquième major Jibi Sow ci marché Dior ñu ngi koy ziara ak soxnaam ba Sem di ziara Soumaré ambassadeur ci Turquie nekk ci Mali ñu ngi koy ziara Ibrahim Soumaré ak soxnaam ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara ak seen groupement yëpp fàttewuñ leen di ziara Yaya Sarr ci France di ziara Mbay Samb nekk moom it New York eh, di ñu bàyyi xel di ñu teewlu saa su ne di ziara Cheikh Bara Fadilou ci Ndindi di ko ndokkeel ci gàmmu ci màggalu eh, Tuuba gi ñu ngi koy waajal bu baax di ziara Soxna Fatou Silla Awa Mbacké Cheikh Saad bi nekk ci domaine ñu ngi koy ziara bu baax di ziara it eh, faat Diawara ñoom ñëpp Euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara di ziara ba tey euh, Fanta Diakhaby yu malaam nekk ca Sococim euh, di ziara Babacar Émirate Aïta Silla ñu ngi koy ziara ci caaray moom it di ziara Kaday Nget ca Fuuta Kaday Nget ñu ngi koy ziara bu baax ca Fuuta moom it ak njabootam ñëpp Adja Yaay Musu ñu ngi koy ziara Nancy Nancy Aydara Alaaji Pape Galo Badiane euh, Alxaaji Ngañ Diop nekk ci nekk maire Bambilor ñu ngi koy ziara bu baax Ndey Ba ci Dakar ñu ngi koy ziara ak borom këram Cheikhna Soumaré Awa Diaw Abbas Gadiaga Aline Niang HLM Bariyeli ñu ngi leen di ziara Ibu Koor nekk Angleterre ñu ngi koy ziara ak soxnaam Adam Cissé Koor ñoom ñëpp fàttewuñ leen incha allah Kaday Nget nag ci Fuuta ñu ngi koy ziyaara bu baax ak borom ak i njabootam ñëpp ci nekk Fuuta waa Fuuta yëpp ñu ngi leen di ziyaara di leen dokkeel di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura waaye di ñaan màggal gi ñuy waajal yàlla ci yàlla def xéewal yàlla ñu ci yàlla defal ndam lu rëy waaye lépp luñ fa taataan ci yiw yàlla ñu ko yàlla defal musaawaan ci jullit yëpp bi jaahi sayyidil wujudi wa alami shuhud allahuma rabbi alsamai walardi walnuuri walzulmati walzilli walxaruuri ya man shaqa albihaar wa ajra alanhaar ya man rafaca alsamaa bigayri amadin wa ya man arsala alriyaha nusran bayna yaday rahmatih wa ya man axaata bikulli cheyin wala yuxiituhu chey wa ya man yara kulla cheyin wala yaraahu ahad ilahi xaqiq lana amalana ya rabbi wa tammim lana niyatana waqdi xawaijana ظاهرا وباطنا إنك على ما تشاء قدير اللهم رب لا ترد يد البأس والرجاء منك يا رب يا رب لا ترد يد البأس والرجاء منك يا رب اللهم رب حقق لنا آمالنا وتمم لنا يا رب نيتنا واقض حوائجنا ظاهرا وباطنا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم رب لا تغيب رجائي ورجاءنا ورجاءهم ورجاء جميع المسلمين وصل على نبيك وحبيبك ورسولك salaatan taftah lana biha abwaaba rida ilahi wa taysir wa tuxliqu anna biha abwaaba alcharri wa taasir wa taqdi lana biha jamii alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi ldunia wal axira ya rabbi ya ilahi anta waliyuna allahumma anta waliyuna fa nicma almawla wa nicma alnasir inna allaha malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaqa naasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqi qadrihi wa miqdaarihi alazim subhaana rabbi rabbuna wa rabbukum rabbu kulli cheyin rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin thank you